mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur sa sant di wax sëñ Mountakha yal na fi yàgg sëñ na fi yàgg yàgg ci ginnaawam barke sëñ Touba ndax li lépp moo Mbacké mooma di turu benn rakkan nag ci laay wax ndax moo jiite jeeg ji jiite nag bi yoroon mbootaay kon ci turam laay wax te boo joxee moo kon ñu bokk lépp bokk nag xale yi di nuyu soxna Khady Diop mi di ko siyaare bu baax Diop di nuyu aram dem mi mu àndal ak délégation bi mu àndal am solo bi mu àndal ak ñoom benn nuyu naa leen yéen ñëpp siyaare leen di wax soxna Khady ñoom sa ginnaaw tey ba ëllëg ndax ñun jigéen lañ rek bëgg doon jigéen yoo xam ne nag jigéen yu jàmbaar lañ jigéen ñu nangoo liggéey jigéen ñu takku dooleel seen bopp takku ba mel ne sayu naa na nag xàccandoo di dóorandoo kon bëgg nañ fu ñu nga ne xam ci li ñu nekk ñi xam ci li nga nekk bëgguñu rek mbir mi yem fii ndax lii lee mu jeex tey ji minuit lay jeex kon buñ si jël bu naan day ànd ak dam daay man da loo ne ñu ne ca di ànd ak yow nag fu ne di ànd ak yow dugal la te pale bi loolu la nit ñi am sëñ Tuubaa yàlla na ko defal ak sëñ Tuubaa dinañ am député loolu lan lay ñaanal yow Khady Diouf di wax ne suñu bopp bi lan am amuñu leneen bu nu jàpp nu jàpp la li xale bi gën waxoon fii léegi ku nu jàpp dina ne sëñ Tuubaa ku ne nag ñëw na fi bëgg a ànd ak ñun noonu doog a woot tey jii waaye àndunoo kenn mu dañuy xaar ba gis nga moo tax àndunoo ànd ak moom mu ànd ak waaye waaye. sant nañ la gërëm nañ la ndax woote ñu la yomboon kontaan nañ ci yow lool soxna Xadi mi nag dama ko nuyu ko ziyaare ndax woo nañ si Mbacke Ba yi ñu def déplacement gratuitement dem ba bokk ngeen ko woo ñu tax ñu mus ñu wuyu ko ñu woo ñu fii ci def aram kat yi ñu wuyu ko kon ñu ngi ñu ànd ak yow. waaw di la ñaanal yàlla nag lii nga dënmal nga am ci ndam ñu jàppandala bu ginnaaw buñ la jàppalee nag ñun jigéen ñi Touba dañoo manqué ay formation mboot manqué financement bëgg na noo liggéey waaye amuñu financement amuñu mbootaay mbootaay bi yéen ñu demoon muy dina ñu dëkkaat gën laa jàpp ndax ñu toog ci yow ñu mu sonn ñu ngi rek loolu nga wax nag jël say takkaay jaay yàgg na ci parti ak ñu dox jigéen ñi jàmbaar am développement da koy jaral ne lépp di la ko jaral nag mooy bëgg a jàppale jigéen ñi rek waaye nag ñu ngi lay ñaanal yàlla nga am ndam boo amee am ndam di ñaan yàlla Macky Sall jëm ca kanam mbooloo bi ñoo leen nuyu di leen sant toogaay bi yàgg na lool depuis 3 ñu moo ñu ko jaral ndax olof dañu ne lu ko jaral ko jar waaye lu ko jarul jar ko waaye yow mi yaa ñu ko jaral korog ba ñu woowee station dañ laa wuyu si nga wax ko wax ju dëggu ñuy ay jigéen te jigéen doo nga jar a jàppale te jigéen ak moroomu jigéenam kooku yërmaane dafay taxaw ñii ay jigéen la bëgg liggéey bëgg financement bëgg lu ñuy taxawee te duñu yaakaar daraay góor ñu demal suñu bopp donc waa te yow nga nekk liggéeykat ànd ak liggéeykat Macky Sall ku ko dégg xam ne liggéeykat la lépp moom la ñun Macky rek lañu moom la ñuy wootee tey ba suba ngir ko jëm jiitoo ndax yow jigéen nga ñun jigéen rek asalaamaaleykum yéen ñi Daaru Marnaan maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar kenn ku di jiital ci nuyoo bi soxna May Ba lii nga xam ni moom lañ ci seet si muy jigéen ju jàmbaar jigéen ju dëggu aussi di nuyu délégation bi nga xamante ni moom laa àndal leen wax ni délégation bi ëppoon na nii waaye nekkoon ci terrain bi rek moo tax ñenn ñi xaar. ma ci jiital Aram Ka ak Mbène Kane ak Fati Kane ak euh, Thiat mais Thiat Samba maa ngi lay nuyu di leen nuyu yéen ñëpp ndongo aussi di suñu góor ñu ngi koy ziar moom tamit di nuyu sama càmmeñu bopp bi nga xam ni moo yor micro bi moom tamit di ko ziar fu mu dem sagal ma ko macha allah dileen wax ni leen yéen waa Daaru Marnaan leen rek lañ ñëw pour sàkk si ko ci yéen indil leen tam aussi benn message. li ñuy jiital ci kàddu yi nag mooy dimanche incha allah suba rek moo ci dox butin bii ma yor butin bii ma yor di marron dama leen di ñaar ngir yàlla na ngeen ko lem bu dimanche lii ba mu egg ngeen dugal ko ci enveloppe bi te bu leen ko gole jël leen catul làmmiñu enveloppe bi dugal ko ci biir loolu mooy tax ngeen mën a voté vote bu normal dugal ko ci urne yi. parce ko xoolee ko xoolee perte ngeen vote boobu coono ba ngeen dajoon dem voté ji yëpp da ngeen koy ñàkk. beneen ba ca pour li jëm rek ci vote bi ci sécuriser ko incha allahu rabbi dinañ fexe indil leen kaar ak li nga xam ni moom lay àndal moo xam da ngeen di togg seen i añ moo xam da di jënd seen i sedd yéen xam na ngeen koy defee. pour ngeen mën a génne may jigéen ñi nga xamante ñoo nekk ci koñ bi bëgg a voté ji car bu nekk nag dinañ ci boole benn convoyeur boo xam te mooy superviser affaire bi pour wan leen ni ngeen di voté ku ko fàtte pour jàppale leen ba ngeen mën a dem ci jàmm ak salaam ma di leen wax ni leen boo leen defee loolu de votel ngeen ma votel ngeen président Macky Sall taalibe Cheikhul Khadim bi ndax nag gis ngeen li muy def Touba gis ngeen li muy def ci biir Touba te mosu see am ndam ay waay ngir yàlla votel leen président Macky sàll ngir seexul xadim mi ñu bokk ndax nag sëñ Mountakha moom la ñu xoolloo sëñ Mountakha bii lañu ñu voteloo ndax bi fi Mimi Touré ñëwee ba ci Demba Ndiaye yéen ñëpp gis ngeen devant des caméras di ko dégg ñëpp seetaan ko mu ni président Macky Sall heure bu ma ko gisee sama cofeel ci moom day gën a yokk li ma bëgg ci moom nag dama koy booleeg xam Khadim mu ñaan ko ko ndax nag lépp lu ma mos a soxla ci diine ji su ma geesoo gis naa président Macky Sall kenn mënu ko ci kooku day taalibe xàqan moo tax muy doxalee noonu yéen lépp ngeen dégg li nga xamante ni moo am biir Touba ndax nab bi kenn ku nekk dégg nga li mu commencé woon doon mais nag dañuy sant yàlla. ndax ku santul doomu aadama mënoo sant nit kon dañuy sant président Macky Sall ndax loolu ba mu ko déggee xaaru ci bu ko neexoon xaar bu ko neexoon négligé bu boobaa taalibé sëñ Bamba yi dinañ génn waaye kenn ku nekk di nga boole sa juróom ak sa ñaataram moom moo yëkkati milliards de milliards pour nag boobu bañ a déplacé fi mu nekk. kon dañuy ñaanal président ma Macky Sall suñ boroom gën koo taxawal gën a yokk man-manam ba pare may ko ndam ci élection yi. soo gisee nag ma ni leen voté leen président Macky Sall ngir yàlla ndax olof Ndiaye daf ni bët bu rusul day taw sunu nawle la di taalibe xàqan te élection yu ñëw mu perte fii di Touba waaye lu mu ko perte perte bu xëyee dugg si waa Touba ak i teraangaam kooku ku dul taalibe mënoo ko ku dul taalibe mënoo loolu kon dama ni yéen taalibe sëñ Bamba yi buñ leen nax buñ leen xolloo ku baaxul buñ leen voteloo koo xam te ni du taalibe sëñ kii wut nag tànk amagul lu mën a wax ba am dana ko wax waaye bis bu amee nu muy doxalee kii nga xamante ni yàlla may na ko mi ngi fi xam ngeen jikkoom ndax kuy wut moom amagoo lu mu la wax xamal ni loolu du jikkoom xamagoo mais président Macky Sall jikkoom yéen yépp xam ngeen ndax yàgg na feeg yéen 2012 ba léegi mi ngi feeg yéen macha allah yàlla na gën a yàgg kon dama ni kooku xam ngeen jikkoom. xam nga li mu li mu li mu nar ci réew mi xam nga li mu capable ci réew mi bu dee jàng kenn gënu ko koo bëgg bu dee lu baax kenn gënu ko koo bëgg bu dee gëm kër kilifa diine kenn gënu ko koo bëgg waaye rawatina dëkk bii di Touba boobu moom spécial la pour moom ndax kenn gënu koo nekk taalibe nag kon tàccu leen loolu waay kon ma di wax ni leen ngir yàlla nangeen ngeen ko voteel ndax élection yi de bu ko pertee ñun waa Touba jaratul ñuy waxati dara wala ñuy génn ci dëkk Serigne Bamba bi ndax nag dañuy taaliba yu am pas-pas am gëm-gëm gëm Serigne Touba yaakaar ko te képp ku di taaliba nag nga dëkk ci dëkk bii boo leen génnee beneen tudul Touba ngeen tasee fa da ngay xam ne taaliba rek ko wóor ku nekk dara naan sama mbokk nga sama mbokku murit nga sama mbokku murit nga nga xam ne mbokk gi gën a féete kaw mooy di taaliba. ki nga bokkal Cheikhul Khadim mooy bokk gi gën a féete kaw kon dama ni kii mooy suñu mbokk muy président Macky Sall ñeneen ñii mu boo murid nag ngir bëggum réew tax ñu naan murid lañ euh, fii la ñu bokk fee la ñu bokk dama ni leen buñ leen nax ndax murid da nga koy jëfee murid day bu la gisee ci sa jëf da cay feeñ buñ la gisee ci say kàddu da cay feeñ la gisee ci sa yar dafay feeñ ndax murid boo ko feeñee muy dem ngay doo nattale da nga naan kii murid la dem doo nattale da nga naan kii murid la. tàccu ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi bëgg mu boo murid yi keroog ba ñu defee rek ñu def ca Dakar Ndiaye ngeen dégg te ña ca faatu suñuy doom yoo xam te ni faatu nañ ci jamono na doon lu nekk na ci réew mi mën na nekk ku nekk ci réew mi ñu ñàkk ñu ñàkk leen ci loo xamante ni lu ñàkk fayda loo xamante ni góor guy taxawàllu moo ko def fexe ba suñuy suñu njaboot loru ca mu bëgg a jël dëgg gi jël fen wi muure ko ko bëgg koo ànd ak yéen bañ leen dindi leen fen wi sànni seen loxo ci dëgg. ko tàttu leen ko tàttu leen bañ leen loolu li nga koy bañee mooy ngeen fexe ba bu mu fi am dara ndax nag bëgg a yorum réew bu mu tax mu ni taalibe laa cere bon jëfee lam jëf sëñ mu taxaa woo ko conseillé ko wax ko dëgg keroog ngeen ko mujjee gis ci kanamu sëñ Mountakha ku ko gisaat image am ci kanamu sëñ Mountakha nga ni man la kenn gisaatu ko ci kanamu sëñ Mountakha dugg na Touba ñaari yoon beneen bi caravane la doon def nii la rombe kër kilifa diine yi dugg ci kenn ziyaarul kenn na ñëw na fee yaay ni day zambala ni day dem xel kool a ji sëñ Cheikh Salim waaye sëñ Cheikh Salim sëñ Mountakha mooy kilifaam ndax sëñ Mountakha boo ignoré sëñ Muntaxa ignoré nga murid yi yëpp ba ci man mii ci gën a xeebu di taalibe di taalibe Serigne Fall man ku buggul Serigne Muntaxa góor ki nga xam ni mooy Cheikhul Khadim fii ci kaw suuf man dama ni man lu bokk ci yow ak lu la laal ak lu la jigéen dama lay sànni tàmbali ma la soxla kon dama ni kon dama ni ñun ñii di murid bu ñu dof nañu xëpp suñu xel suñu bët yi ubbi suñu xel yi. te di ko xalaat ndax xel moom jëriñu lenn lu dul xalaat li tax ñu wuute bàyyi ma yi mooy xel bi ñu yore di ko xalaat kon nag ku ci nekk sam xel liggéeyloo ko xool lim lay lim lay jëfal nga xam ni kii ci ay caaxaan ak ci ay tappale ki nar rek la nekk te ko ànd ak moom it te nga nekk ndax nag ko ànd ak nit ci ay caaxaan ak i tappale te nga nekk te liste bii ki ko jiite di doomi Alaaji Baara xalifa général ku lu murit kooku moo njëkk a toog ci sët toogee ko jotaayu Serigne Touba di doomi Serigne Fallou sama yaakaar tey ak kon dama ni Galas Kaltoum moo laa ji baaraam moo jiite liste bii moo nekk tëdd liste bi départemental kon dama ni kooku doo kii nga xam ne mooy Cheikh Abdoul di sëtu Serigne Modou Moustapha Hakan dama ne kooku du nekk ci liste ko woon ginnaaw kii nga xamante moom mooy Cheikh Bara Gueye honorable di di meeru Daaru Naim dama ni kooku ci ab yaram ak taalibe ma ki tegge nañ mag social am du nekk ci bis ngeen ñu ko wan ginnaaw kon dama ni man de damay wax ni wallaay lanzim ñi nekk ci liste yi sax man maa leen gën a bëgg ndam barke Cheikhul Khadim ñi nekk ci liste bi barke Serigne Fallou maa leen gën a bëgg ndam ndax gënuñu ma cee sonn ndax lan damaa bëgg président Macky Sall am ndam budul li ma ko àndal dama ko ñeewantal ci li mu ñàkk. tàccu leen loolu tàccu leen ko. Abdou ci li muy ñàkk Touba ndax nag du yoon ndax taalibe la comme ñun te taalibe warul ñëw di soxla ñun ñu di ko ba ñu ñu di ko bañ a jox li mu bëgg ndax suñu électeurs yi nag ñu votal ko président Macky Sall du ñu wàññi dara te moom dana ko jaral ndax lii euh, état lii opposition bi bëgg cohabitation loolu bu amee ci réew yéen ñëpp xam ngeen li mu ñu mën a jural président lu bëgg a liggéey ñu ne parce que am te xam nga opposition bii nga xam te ne opposition immature laa leen tuddee immature nañ manqué nañ responsable amul kenn koo ci gis koo xamante si da nga koy xoolal ni kii responsable la déedéet comme kii mature lañ nag ñun ko mature lañ bëgg te président Macky Sall la mature kon nañ ko mayaan majorité ngir mu mën a doxal ba 2021 loolu la ñuy xaar ci yéen beneen ba ca des muy message bi nga xam ne ci côté financement yi la man sama kàddu dem mooy sama kàddu tey te lu ma narul du ma ko wax lu ma fas yéenewul du ma ko wax dama ni woon damay dajale yi ci Touba yëpp xëy na nag du yomb dajale mais ñu ngi ci ca sore nañ ci lool après élection yi ñu tàmbalee ci liste ba ka jiitoo ka ca topp ba ka ca toppaat ñu dem fa fekk la fa nga nekk yow ak sa waa mbootaay ñoo xam ñaata personne ngeen ñu bind leen financé leen ku ne gis na suñuy départ financement 500000 la woon ci mbootaay financé nañ tam aussi 500000 yu nekk cinq personnes boobu banque lañ ko lijjanti woon fayal leen euh, pardon fayal leen caution bi ñoom ñu dem di ca liggéey ndax man ku ma xam-xam ni man jigéen ju gën dañu war a liggéey laa ndax jigéen yi Touba dafa jot ñu war a mën a mel yeneen jigéen ñi ndax nag bu dee qualité jigéenu Touba la bu dee jigéenu Touba la bu dee nangoo liggéey jigéenu Touba la bu bëgg sa bopp jigéenu Touba la kon dama tax leen waay leen jàppale ko loxo bu leen jàppale ngeen dem ndax toogoo leen seen kër yi naan damaa bëgg a liggéey kenn ku ne yaa ngi yaxantu ci dara kon ki nga fekk ci yoon muy dem soo ko yóbbaale ni ko am yóbbaale lii da nga koo dimbali waaye fekkoon nga ko ca yoon muy dem kon nag dinaa leen dimbali ba ngeen xam ne dimbali naa leen te yaakaaruma ci ndimbal loolu kenn ku dul président Macky Sall te incha allahu rabbi gëm nañ ni xam nañ ni duñu woor ndax daray woor nekkul ci moom te lépp lu ñu soxla ci moom it danañu ko defal incha allahu rabbi man nag damay wax li ma wax lépp lay répété waat su ma président financé dama leen di financé su ma président naa wul dama leen di financé ndax fa may jaar ba financé leen xam naa ko maîtriser naa yoon bi te incha rabbi day am man nag dox ma ci daray wax dox ma ci daray caaxaan may ñaan nag yéen tamit ngir yàlla na ngeen ma def ni ma leen def bu leen ma wor bu leen ma wor te ñëw na ba pare ndax nag suñu doole. suñu yaakaar ci yéen ñii la ndam li ñu bëgg a jox président Macky Sall man kese mënu ko koo jox yéen kese mënu leen ko jox ñun ñëppay maasee loo man koo nekk benn pour may ko pour may ko ndam li Touba man de gàcce la ci man gàcce la ci man dimanche ñu ni président wala lundi ñu ni président Macky Sall perte na Touba gàcce du gën a rëy loolu kersa du gën a rëy loolu barke Cheikhul Khadim ak bu boobaa néew ma du ñu nekkati biir Touba waaye xajati biir Touba da dul yomb wala kuy génn da nga da nga takk burxaa pour bañ kenn xàmmee la ndax nag gàcce gu rëy ma di leen waxtaan ni leen président Macky Sall na leen leer ni ubbi na ay bëtam teg ko ci yéen xam na bu baax li ngeen di daj biir Touba xam na ni financement yaa ngi dugg biir Touba mais jotoo leen ci te incha allahu rabbi ñun ñii danañ indi ba ngeen jot ci ngeen gis seen bopp bu dee ci côté formation na leen leer ni financement dafay ànd ak formation formation bi ñu ngi ciy wax. maa ngi lijjanti ngir am centre de formation képp kuy euh, képp koo xam te jiite na mbootaay yow ak sa waa mbootaay soo ñëwee def sa formation ba jàll keneen ñëw ndax bu kii defee saabu kii de javel kii defar jus kii defar leneen ku ci nekk yéen mën ngeen a ji jaayante seen biir ndax kenn ku ci nekk la sa morom yore da nga koy soxla kon dama ne man xam ne yow pare naa pour jàppale leen ci biir pare naa pour jàppale leen ci biti. waaye yéen it ngeen ma dimbali ngir jëmmi Serigne Touba mi ñu bokk ngeen jàppale ko président Macky Sall loolu dama ciy insisté waat ndax élection yi président Macky Sall waru koo ñàkk waru koo ñàkk de kon nag kàddu baa ngi noonu ma di leen sant yéen di leen gërëm seen toogaay yàgg na vraiment waaye nag euh, soxna may ba jaral na leen ko ndax li tax ngeen toog ba heure bii loolu du ay caaxaan te muy foo ndax fee ñu jóge euh, dem ko programme loolu moo tax fi ñu war a am yeneen yu ñuy jàll loolu moom moo tax mu xaw a guddee nii waaye guddee wuñ ko woon nii jërë ngeen jëf buñ buñ sañoon ci ak cant la ñuy ñëw waaye ndax ci loolu jërë ngeen jëf